jafe-jafe mi ngi tàmbalee depuis sama sama divorce mariage bi ndax paa bi d'accord si woon après nag ba ñu mayee ba nu marié ba pare après man ma divorcé léegi nag yow à la fin paa bi di venger wu di venger wu ndax man mi man dama yaakaar ni sëy bi nga xam d'accord si ma dugg si ba à la fin yow man ma génn si moom loolu da si war a kontaan mais deful loolu moom après moom da si doon vengé wu naan ma naa génn kër gi bu ma toog kër gi maag samay doom affaire yooyu dima xamal ni ma kër gi doo fi ma sa am jàmm mais man mi man gëw ma loolu donte waajur la man gëw ma loolu man ma toog rek mu may teg mode de souffrance bu nekk man ma toog rek ba à la même xeex bi ma amal nii sama jabaru mag bi ba mu dagg sama nopp bi moom moo ko ngemb moo ko fital moo ko dooleel moo ko sama mag boobu nekk sa kër gi sama nekk sa kër ga am na jëkkër mais nanguwu sëy ndax paa da ko bàyyi sa kër ga chaque jour jëkkëram laajte ko paa bi bañ ko jox jëkkër ji bàyyi ko sa kër ga léegi nag benn dimanche ma ñëw fekk ñoom ñi ñoom dañ ko mànkoo xale bu jigéen bi yàgg na may wax naan ma naa la sàkkal màndarga naa la rey man kay loolu boo ma ko defee ma bàyyi lekk ceeb affaire yooyu ndax sama moroom la xamante nanu moom i moom mësuma man fekk ñoom ndaxate mànkoo nañ seen biir ma jóge benn dimanche ñëw mu ni ma ma dégg sama mag bi naan ka ñëw na affaire yooyu man ma dem toilette ba ñëw fekk doomam bi di màtt sama doom ma ne ko yee eh, kañ nga ñëw bay màtte fekk moom jëlee na ma ginnaaw te yëguma ko mu matt ma si digg ginnaaw màtt ma si dox màtt ma si mbagg si la si la wëlbatiku noonu pour pour kii sama défendre sama bopp si la sama bi kidnappé sama loxo après nag mooy moom si la ŋànk ba yàbbil boppam paa bi taxaw assister fekkee loolu après ñu laaj ko ni ko ba xam dagg na mu ne waaw après si lañ dem si mbedd bi daal di woote àtte après nag yow ñu saaga àtte ba nu àttee man si laa dem hôpital sauver sama bopp ba ma sauver sama bopp ba pare si laa dem hôpital après si laa juree hôpital dem sama kër grande sœur bi mu suñu taw bi ma wax moom après ba mu waxee moom ndax mooy moom mi ngi dëkk foofu suñu ginnaaw sorewunu après si la yëg kaa bi si la ma accompagner yóbbu ma hôpital ma piqûre piqûre tétanos si guddi googu noonu xam na pharmacie yow yuy tijji yow du bare ndax dimanche la woon pharmacie yu monté kasey tijj après yow si la ñu jël taxi dem si pharmacie yu monté après yu jënd ordonnance bi piqûre piqûre tétanos bu ñu ñëwee kër ga noonu pour moom muy déglu paa bi affaire yooyu comme que problème am na fi mais paa waxul dara comme ça veut dire que dara xewul ah paa bi nekk yow à l'aise toog toogaayam di dund dundam waxul dara sama mag bi sama bi déglu ba soon déggul dara après si la delluwaat këram lendemain mu ñëw di wax ak paa bi di ko laaj la moo tax démb waxul paa bi di koy xamal ni ko kuy xeex loo am jëlal affaire yooyu noonu après nag yow si la sama sama sama mag bu góor bi nga xam ne jabaram moo ma matt si la yëg kaa bi paa bi ni ko jaru ngay ñëw ndax parce que kaa bi te affaire bi du mujj fenn affaire yooyu noonu yow si la sama mag bi toog am de tani la sax sapeur la si la toog ba mu toogee yëg ni jabaram après nag yow si mu yëg ni jabaram defeere nan ka si la daggu oto ñëw waaw ba ma sobee sama bopp ba pare dama yeewu suba di wut certificat médical ah fay 10 000 wu certificat médical après ma dem police bind sama plainte daal di déposé si la ma waa jox benn ticket ni ma ba suba suba si ay 10 heures nga ñëw suba si ay 10 heures ma ñëw ba ma ñëwee mu jox ma convocation ni ma dama joxe chef de quartier bi ba lundi lundi si ay 10 heures ngeen ñëw après nag si laa jël convocation bi jox chef de quartier bi après nag ba ma ko joxee chef de quartier bi après chef de quartier bi daal di ko koy jox ba mu ko ko joxee moom mu yëg ni caaxaanu ma si la ko indil paa bi si la indil paa bi convocation bi daal di koy xamal ni ko amikat caaxaanu mooy moom yow mi ngi si affaire yi si la paa bi woo ñaari xaar xaritam def jéego fekk ma sama kër grande seur bi fekk ba problème bi amee woon maa woon sama kër grande sœur bi toog foofu ndax moom ni ma toogal foofu toogal fii nii yow sama kër ndax xale bu jigéen bi ba mu defee kii bu ba sa ëllëg sax dafa ñëw mel ne deful dara ndax parce que dañ koy ngemb après si la ma sama grand sœur ni ma comme comme ñuy jaawante si kër gi toogal si man ba affaire yi kii wàññeeku après nag yow si la sama woo ñaari xaritam ba mu yëgee plainte bi su la woo ñaari xaritam ñëw fekk ma sama kër grand bi di ma ni ma naa retiré plainte bi naa retiré plainte bi naa ko bàyyi affaire yooyu ma ni que c'est trop tard ndax ça fait trois jours depuis lors te sama papa bu mu doon ñëw foofu àndul benn membre si kër xale bu jigéen waa kër xale bu jigéen àndul ak benn membre sama papa rek moo ñëw ak ñaari xaritam àndul ak benn membre dima xamal ne ma naa retiré plainte man que c'est trop tard si delloo ginnaaw affaire yi après ñu juge ñu vendredi ku jigéen ki defeere nan ki màtt ki defeere nan ka mais ki ma kidnappé ba ba kooku am audace màtt kooku kenn defeerewu ko mi ngi kër ga toog mook paa bi kenn defeere wu leen kii rek la lan defeere ki matt ki ba mu dagg rek kooku lan defeere sama doom yi jafe-jafe yooyu may dund mooy damay am problème pour dundal leen ndax parce que élève la damay jàngi duma garde weccit damay am sax problème transport damay dox ba suñ école su nag su ma ñëwee xale yi di ma jooyee xiif duma am lu ma leen jox léegi damay obligé dem bikit ba lépp jox leen dénkaane fa bor lu ma am après ma sànni bikit ba ma ñaan loolu borom bikit borom bikit bi may ma ko ma ne ko dee may jox may jox xale yi su ko defee man su ma amee fay seen papa da leen abandonné nanguwu leen dundal jotoon naa ko yóbbu si yoon waaye yoon dafa ne mënu si moom lu bari na aw ma certificat de mariage mais boobu ba léegi seen papa dafa croiser le bras boobu ba léegi maa ngi dund loolu noonu souffrance boobu noonu. sama doom bu njëkk bi am na cinq ans sama deuxième doom bi am na deux ans. instant yi nii aw ma ku ma jàppale wax dëgg yàlla instant yi nii aw ma ma jàppale te maa ngi bokk di dund ak ñoom. sam fexe na bu ne fexe na bu ne pour kii pour génnee ma kër gi amul moyen bi mais xale yi suñu waa école yooyu ñu ngi ma doon jàppale ñu ngi doon jàppale gaa si xale yi dima may goûter ma yóbbul xale yi. affaire yooyu loolu tamit jàppale woon na ma trop ndax suñu waa école dañu yéex a yëg kaa boobu noonu mais yëgee dans trois jours ñoom ñu ngi ma si doon jàppale mais sam pexe bu ne def na ko pour génnee ma kër gi amul pexe bi dem nañ si ba tribunal pour ma génn kër gi mais dañ ni ko comme que aw ma moyen location mënuma génn kër gi te si kër gi laa bokk moom moo ma jur daf ma doon xamal ni ma boo génnul naa la toxal boo génnul naa la rey affaire yooyu man gëw ma loolu noonu mais moom mu obligé wekki bunt bi teg ko ne xale yi di fanaan si Coulandaire sama mag bi sax jëloon na orange defar bunt bi mais pas bi ni ko boo laalee bunt bi affaire yooyu te xama waxu kilifa waxtaan a neex boroom kër mais tamit personne boobu noonu da koy doon def pour mais man daluma si ndax sa comme que sama néeg bi amul bunt undi dañuy duggeeg di génn si la ko und laal affaire yooyu noonu mu moom mu yow yow und bi dee yow sur le sang après si la ramasse und bi sànni ko poubelle ba tuuri ñam bi ba mu xëyee suba sax mom pa bi daf ma don xolaat ndax mi ngi japp ne ñam bi lek te pare won na pour lek ko sax mais liko undu bi laal motax après nak yow sila laa xalaat ne lii la sila tour ñam bi sanni undu bi mais waxuma kenn dara man daal limay ñaan nit ñi pour ñu mën ma dimbalé dimbale ñu ñu pogné papaay xalé yi mu jël doom en charge defaral ma yow sama bi fii bu ciment bi ndax bu nawet ñëwee ci ci taw laay fanaan ba biir set buy taw du ma nelaw xale du nelaw te ku ndaw ki asthmatique la ñu defaral ma fii bu ciment bi monteel ma bunt bi ba ñu mettre yow en bonne sécurité ñu poñeel ma papaay xale yi ñoom ñu mën mu jël doom yow en charge ndax man élève laa mënuma leen dundal.